cartes organiser un pouvoir aussi majestueux boole ñu fi ñu ànd ko ak yéen ànd ko ak xel Mbàkke yëpp suñu xanax teddal ci bu baax suñu xol teddal ci waa Mbàkke li may wax saa su ne rek sama diggante ak waa Mbàkke bu élection tey waa Mbàkke aw ma seen xel ndax dañ maa jàppale loolu ma taxawu ma ba dénk ko meeri Mbàkke bi te ñu fas yéene incha allah def lépp lu mën pour xarkanamu Mbàkke soppeeku loolu mooy suñu yéene mooy suñu engagement di bëral également un remerciement ak wax suñu gratitude au président de la République Macky Sall bi ak une confiance renouvelée ba dénk un ministère aussi stratégique que le ministère de la fonction publique cër boobu nag cër waa Mbàkke cër boobu cër département Mbacké cër boobu bi ma ko jotee damaa dellu ci borom gox bi borom loolu seen Mountakha Bachir ko cër bi dama leen ko ndax ñun lépp lu ko delloo waa Mbacké kon nag na waa Mbacké gën a am yaakaar ne incha allah suñu taxawaay ak suñu yéene ci xale Mbacké loolu am na fu mu tàmbalee waaye am fu mu tey incha allah dañu yi gën a leen taxawu. ba pare wax ne état bi dañ ko assurant tey dañuy ba état gaaw pare loolu nag waxtaan naa ci ministre des sports mu ne moom tout ne nii moo war a pare état bi dina bu am Mbacké allah ci état bi incha allah పిల్లలు శత్రులకు దానికి పోయేస్తూ నిర్పాయించే ఇంటి చెప్పలే అక్కడ ఇంటిగా సైజ్ మాకు సైజ్ మాకు ఉండదు వాళ్ళు మనం కమ్యూనల్ ñu sant waa Mbacke Bawol parce que man Touba laa nekk seetaan si match rek moom laa ne war sama ko te ñëw toog dinaa leen dem trouvé ba ñu xam ne doomu Touba laa bëgg naa sport euh, vraiment FC Bawol li def di daaw ñu ko tàmbalee ci euh, Aline Diouf saa buñ ko woowee wooma lu ma ci man ak lu ma ci mën def ci loolu lañ tàmbalee bañ gis ne man ñu ko sportif la def xëy na deux cinq ñu dellu ma ko tuddewaat dama journaliste yëpp vraiment ñooñu suñu nit lañ ndax saa bu kon rafet na def leen match de gala ak journaliste yi man démb damaa génn moo tax euh, ñëwuma mais yàlla tey la dogal après man ma dugg si loolu ñëwee si naa fi mais gis naa fi taxawaay rafet na lool vraiment amoon lu ma fayee waa Mbacke Mawal te def nañ ma comme seen doom waaye may euh, lépp loo xam ne taxaw bëgg nañ Mbacke am ko te ma mën ci dara dinaa ko def ma ci mën a dimbale doomu aadama ante diggante Mbacke ak yi dinaa man chef de coopérateur économique ko ba laajtee ci Mbacke yëpp xam nañu Touba li may gën a xam ci Cheikh Gueye Sadax. ndax damay liggéeyante ak ñoom benn société bu mag Dakar kon vraiment aw ma lu ma leen fayee maa ngi ñaan ko yan bii yàlla yan mu woyof tooy tooy tooy tooy ay nañ ko lool nag lu te gis nañ ne lu baax la ndaw lu mën a jàppale doomu la fii vraiment bi wax dëgg yàlla bu fekk mu dëgg laa bëggoon naa doon maire Mbàkke bëggoon naa mu doon ministre surtout mu doon ministre ndax liñ lépp luñ organisé ci football ak lépp luñ organisé dala ba teew na lu néew kon kooku amul luñ ko mën a fay kon bu rek moo ko mën a fay yàlla ñu ko wax sax mouvement mais mais je pense que lépp lu ñu parce que plus dans social que ci boo xoolee euh, à travers Mbacké ak Touba ñuy def ay œuvre de bienfaisance kenn xamul ñu toll récemment rek on a récemment on a eu à soutenir à à participer activement ci désherbage bi ñu def ay sanitaire yi nga xam ne ko Daaru Salaam ak euh, Touba ak euh, Mbour ak yenn action sociale yoo xam ne mënuñu ko wax mais képp ki nekk Mbacké yaakaar naa boo ci tegul sa bët aussi def loolu daal mooy en grosso modo li nga xam ne waaw lii nii c'est juste pour lancer des messages message bi si jiitu nag mooy wone ne Mbacké tey fi ñu taxaw mooy dañu ñëw organiser tournoi bi chaque année dañ koy def c'est la deuxième édition bu ñu aussi organiser ko ci stade bi trois ans stade bi amul Mbacké donc pratique wuñ football nga la situation ak li ñuy métti métti fii la ñu am kon c'est juste pour mettre la pression sur le nouveau ministre du sport góorgóorlu ba mañ a mel ni ministre bi fi jaaroon àggale stade bu Mbacké donc c'est juste un message mais beneen message bi mooy dañu am doomu Mbàkke boo xamante ne dañu yàgg a jooy durant fukki at Mbàkke gisul boppam ci gouvernement bu Macky Sall cette fois si mu nekk si partenaire na bi cette fois si président de la république jël ko dugal ko ci biir gouvernement bi ñu jàppoon ne bu ci doonee maire Mbàkke bokk ci gouvernement bi lépp lu Mbàkke di jooy muy hôpital muy stade bi surtout muy ay pour la jeunesse muy tëli yi dina ci góorgóorlu kon kon li tax ñëw nag sargalee ko bis bi war a nekkoon l'opérateur économique Cheikh Gueye di ko sargal moom c'est juste pour lancer message président de la république moo xam ne Mbacké opposition comme pouvoir ñu ngi ci ginnaaw seen doom ngir mu réussir mission bi su ko réussir c'est la réussite de Mbacké su ko essayé tamit Mbacké mu échec ndax à chaque fois on réclamait Mbacké bokk ci instance de décision bi ndax jàpp nañ ne li ñu laissé woon en rade conseil des ministres am ku ñu kon cette fois ci bu jëlee doomu Mbacké il faut ñu ñemeloo doomu Mbacké mais aussi firndeel président de la République ne ko li yombul la jeunesse est là la jeunesse intellectuelle est là les chômeurs sont là moom président de la République wax parce que mooy jiite réew mi mais ministre ministre de la République mais aussi doomu mbake la objectif bu mouvement bi nag jàpp naa ne mooy lii la lii la ñu bëggoon am nañu ko bi si des mooy stade bi pare ministre bi aussi def li ko war xam ne Mbacké ngi ci ginnaawam beneen bi comme ni ñu ko xamee li ñu fi indi lépp lañ ko loué bu ñu amoon stade dañuy dem mais même bu ñu amee stade on a besoin des de des matériels tey Mbacké soxla na ay matériel soxla nañ ay bâche suñu moomal suñu bopp soxla nañ ay siège suñu moomal suñu bopp boo xoolee li ñu fi fare tey ça tourne autour de un million six cent et quelques mille si rek organisation leneen ñëwagul matériel bi di ko loolu mun naa ñàkk jàpp nañ ne loolu tey buñ ko investir woon Cheikh Gueye jàpp si monsieur le ministre jàpp si keneen ak keneen jàpp si dinañ am suñu matériel bu ñu monter suñu bopp ba ëllëg doomu Mbàkke lu ñu bëgg a def dinañ ko mën a def juste rek pour wax ni waa Mbàkke aussi ñun ñu ngi si lu ñu war parce que ni ñu demee si monsieur le ministre Gallo Ba dem ci moom saafonteeg moom wax ko li ñuy nam ci ministère am bi noonu lañ ko defee à travers Cheikh Gueye benn xaritam bu jege ministre lettre am jot na ko bu demul woon Qatar il serait là si li mu wax ministre Galaba aussi confirmé ko dina def visite de chantier te nee na li mu wax la maire da Mbacké ministre moo ko wax wax na ko ah, sànq à la rajo nee na ministre bi nekk lépp jàppandi na loolu nag yàgg nañ koo dégg ca Matar ba jàppandi na stade bi fii ak ñaari weer ak xam nga lu ñu bëgg nit ñi xëy ci stade bi eggale stade bi durant moins de trois mois dañu may Yankhoba Diattara nag ah, te mu xam ne moom tamit dañ koo dénk mission bu bees ki fi nekkoon inauguré wul benn stade bu mu defar. moom na ñëw li fi nekk ci stade Mbacké bii su si defee fulla ak fayda am yéene bi ko am Mbacké di xaar ci moom président de la république dem nañ fa mu am yéene àggale stade bi su ko defee farata di yëg trois mois stade Mbacké bi na pare su ko deful farata nag wax dëgg fa maar jàmmaarloo ak moom réclamer président de la république mu wàcce ko parce que nag amatul ultimatum bu ñu may kenn